Thank you.

Allons-y Euh, gendarmerie ngeen di seen noonu muy waa gendarmerie nationale ñoom ñoo taxaw ne pour euh, la presse bañ a jàll presse baa ngi nii si ginnaaw comme ngeen koy euh, séenee wala presse presse baa ngi noonu ngeen di seen voilà xoolal dafa dafa ñu dem xanaa bu ngeen tere ngeen tere ñi ñu jàll mais presse ngeen tere seen liggéey àndal ñu dem soxla ngeen torop. ñoo ngi nii yéen a euh, ñoo ngi noonu taxaw ñun ñu ngi def demi tour duggee koñ bi rek génn fii na yoon buñ waaw. bu ko jaayee dañuy dañuy jàll. dugal li euh, ngeen may ñu tuuti parce que fi nga xam ne foofu la ñu waroon euh, awe ngir topp may ñu rek baal ñu euh, pour topp cortège Ousmane Sonko dafa jàll rek gendarmerie nationale daal di ñëw baare ko ngir ba est fi baare ko. dañ ko baree est-ce que xool nga te man waaw mais déedéet du am fu nga génnee jee moo tax da ngay wiiriwaat non fi mu aw foofu gendarmerie mi foofu nga mën noonu waaw demal amul problème génne rond-point nga nga nga nga gaaw jël nañ la waa taximan bi itam gaawal. non ñuy barki yàlla ah ma baax na garaawul. daanaka ma ñu bloqué de. la gendarmerie nous a bloqué. voilà léegi nag ñu def le maximum. dem bien am nañ équipe yoo xam ne présentement ñu ngi foofu ci ci tribunal bi xam nañu nag bu ñu moytu moom moo ñuy moo ñuy njëkk a egg euh, parce que euh, voie bi nga xam ne awee woon na foofu ñun dañuy ñëw rek euh, fekk gendarmerie daal di koy bloqué donc grand tour la ñuy la ñuy mën a def waaw pour pour mën a dem donc ñoom dañoo jël toutes les dispositions que nekk que nga nekk la presse ou pas yëpp duñ la duñ la bàyyi nga nga jàll mu nekk difficulté yoo xam ne tamit dañ koy xaw a jànkonteel si genre événement yu mel nii su su amee euh, ci liggéey bi te yaakaar naa ne pour information yi pour ñëpp pour ñëpp la pour ñi nga xam ne ñu ngi seen kër yi Euh, ñi ngi seen euh, bureau yi ak ñi nga xam ne amuñu possibilité ngir euh, ñëw fekkee mbir mi ñooñu ñoo tax tey jii taskatu xibaar yi di di liggéey mais daal gis nañu ne tey muy police muy gendarmerie ils ont pris toutes les dispositions ngir bañ a presse bi ni ñu toppee woon l'autre jour ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko tey ñu ànd ak moom noonu moo tax on a toutes les difficultés pour pour mun ko jël xam nañu ne. corniche bi moom bu fa awee rek xam nga fii amul temps même bu amee am na teg gi awel nii bu fa awee moom moo ñu njëkk egg mais dañu def lu lu maximum ba bu ñu eggee tamit euh, fi nga xam ne moom mooy ci terminal bi lépp loo xam ne ñeen na confrontation bi euh, ñu defal leen ko en direct am nañu équipe yoo xam ne ñu ngi foofu mais teewul ñu ngi dem. Sonko waxuñu xaar ñu kan yow ni ma aussi yéen mu ñu xaar ñu ci kii bi ñu am cortège bi tamit xam nga kay loolu lañ bëgg. waaw bi topp na ko tuuti. Ah, ba ñu dem kon man dama. mënuma <laughs> ñoo ngi ñoo ngi dem tribunal ah. ah. di ngeen ko gis à travers les images gis ngeen quoi euh, ci fépp foo xam ne romb nga fa rek. da ngay gis un dispositif sécuritaire bu doy waar muy gendarmerie wax naa ne côté yi nga xam ne gendarmerie ñoo fay nekk ak euh, côté yi nga xam ne police ñoom ñoo fay nekk donc zone bi yëpp. Euh, zone gendarmerie la euh, gis nañu ne tamit euh, ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko bu ñu musaan am convocation wala yu mel noonu daan na sa def déclaration de presse wala mu toog këram def vidéo mais loolu yëpp dem amul te tamit gisuñu fi comme ni nga xam ne rek ay partisans wam doonuñ ñëw di ànd ak moom di ko gunge loolu tey gis gisuñu ko. li may filmer mënul baax parce que maa ngi si oto bi di dem te gisuma dara lu may filmer ki ma doon topp rek. Eh, voilà fii lañu baax baare gis ngeen ko nii kon il faut ñu won leen li li tax demuñu mooy nii. moo bi sax jaar ni doo dem ay dëmb la. voilà donc ñu won leen rek ji si foo bi voilà juste pour wan leen que ne même bu fe fi nga xam ne euh, dépassé nañu ko muy si pont bi feetam euh, gendarmerie def ko def ko baare gis ngeen ko nii pour euh, bañ ñu contourner ci bedeen bi la bedeen bi moom moo nekk nii parce que fii juste boo boo dépassé tuuti rond point cité kër góor gi fi nga xam ne foofu lañ naroon génnee moom moo nekk nii mais fii tamit ถ่ายมุมเนี่ยเว้ยだがばやちかを組むなね。見れん。見れんがんだ。とこはもういけなか。そうです。そうだでば。ああ。ハンザたはわめえ。がわとて。 man laa yéegi mi ngi dem ma yéeg. yéeg Touba merci beaucoup Hamza dawalkat la dawal la ñu dem oto bu yàqoon jënd beneen. voilà ñoo ngi def suñuy pexe pour euh, pour mën a aw ci kaw pont bi parce que foofu moo gën a fluide voilà. embouteillage baa ngi noonu ci kaw euh, fi nga xam ne moom mooy cité kër góor gi euh, gendarmerie nag moom moo moom moo baare di fàttali ne Ousmane Sonko jóge na këram ci bi 10 heures euh, tegalee ay 27 minutes ànd ak ay avocat wam gis nañ fa maître Clédor maître Silva ñoom ñoom la àndal ñoo ko escorté ñun tam ñu ci VDN bi. chers internautes de euh, Dakar Buzz TV yéen a ngi en direct euh, ci confrontation bi nga xam ne tey jii moom mooy dox ci diggante aji saar ak Sonko ca euh, weerum février 2021 Adji Sarr la porté woon plainte leader bu Pastef donc tuumaal li nga xam ne moom la ñuy wax ne viole répété waaye tamit menace de mort convoqué woon ko. Euh, ci convocation boobu nag euh, euh, ginnaaw sax ba mu demee wuy ji gis nañu coow li nga xam ne muccee woon na ci am ba ñu placé ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko sous contrôle judiciaire yëf yi nag yàggoon na yàggaay goo xam ne moom sax mi ngi doon wax ne dootul dem wuy ji waaye ba ñu waxtaanee moom ak ay avocat am nañ koy xamal ne daal mën naa dem rek signé ji. ci li nga xam ne euh, moom mooy euh, ci bureau euh, doyen des juges ka fa nekkoon muy Samba Sall Omar Maham Diallo hérité dossier bi ba mu ko jëlee nag daal dinay déglu ki nga xam ne moom mooy aji Sarr waaye itam na déglu na ki nga xam ne moom mooy Ndeye Khady Ndiaye nekkoon gérante bu Sweet Beauty déglu itam Ousmane Sonko ci jamono jee nga xam ne yàggul dara tey confrontation moo nar dox euh, ci digganteem ak euh, ki nga xam ne nag moo ko doon euh, tuumaal maa ngi leen di wax sànq ay avocat am na yenn ci ay càkkutéef yoo xam ne defoon nañu ko mooy ñu déglu ku ci mel ni capitaine Touré mais également déglu ku ñu naan Baye Mbaye MC ndax gis nañu audio yi nga xam ne génne woon na ko waaye itam kàddu yi nga xam ne wax na ne moom ak aju saax daal di nañu koy jokkalante Euh, avocat bi nag waxoon nañu ne daal euh, moom moomee euh, wax nañu ko mën a déglu ndax dina rek andi ay leeral ci dossier bi ku ci mel ni itam directeur bu bees bu ONAS di Mamour Diallo ñoom ay avocat waxoon nañu ne nañ ko euh, déglu pour la manifestation de la vérité euh, ci mbir mi nga xam ne tam yàgg na lool lu ngi leen di fàttali nii lu toll ci fukk ak ñeent ñàkkoon nañu ci seen kenn ñenn ñi ñàkk ci seen ay matériel ñenn ñi itam euh, fa ñu jaaree am ci ay gaañu gaañu ak léegi ñu ci bari nag ñu ngi naan. Euh, dañu war a ubbi ab enquête ngir xam rek ñi nga xam ne faat nañu euh, kan euh, moo leen faat ndaxte xel mënut a nangu benn yoon ñuy bàyyi mbir mi te amul responsable boo xam ne wax nañu ne daal yow yaa ko def. démb gis nañu ca semaine nationale bi nga xam ne ñu ngi koy xeexal fitna ñuy teg xale yi ak soxna yi moom Adji Sarr ma nga fa woon waaye tam bi ñu ko laajee rek. Euh, li nga xam ne euh, muy confrontation bi daal di tontu na daal moom euh, pare na ngir rek bës bi ñuy fàttali nag kàddu yooye sax moom la waxoon ne ginnaaw bi mu àndee ak avocat ñu koy foofule ci confrontation bi doxoon ci diggante ak Ndeye Khady Ndiaye kon ñi ngi jubali fi nga xam ne moom mooy tribunal Euh, bu ndakaaru maa ngi leen koy wax sànq ne am nañu beneen équipe euh, boo xam ni muy arrivé Sonko muy arrivé aji Sarr loole yëpp incha allah si kanam di ngeen ko am ndax mën ñoo nekk fépp waaye am na ñoo xam ne euh, ñu ngi foofu te yooyu la image incha allah di ngeen ko am ci kanam tuuti. Euh, ñu ngi nag euh, jubali fi nga xam ne moom mooy VDN bi comme ni ma leen koy waxee gis ngeen dispositif sécuritaire bi nga xam ne teg nañ ko un peu partout à travers Dakar moo xam euh, ci cité Keur gi la moo xam tam fi nga xam ne moom mooy ci corniche bi gis ngeen ko noonu foofu GMI muy groupement mobile d'intervention ñoom ñoo nekk noonu fi nga xam ne mooy ci cité Keur gi benn wàll bi gendarmerie yi moo ci nekk beneen wàll bi nag ñi nga xam ne moom mooy police ñoom ñoo fa nekk te boo gisee tey euh, cortège bi ni ñu ko daan toppee Ousmane Sonko mu ñu ko topp parce que ñoom it dañoo jël seen disposition yëpp wax nañ sànq dañu barricade cité kër góor gi même bu fekkee da ñëw présenté wu wane itam li nga xam ne moom mooy sa carte de presse du ñu la bàyyi nga dugg euh, dañ lay parqué fi nga xam ne euh, moom mooy Euh, ci euh, rond-point bi donc ci rompoint point boobu ñoom it bi ñu amee information que ne Ousmane Sonko mu ngi génn ànd ay avocat wam dañu def de telle sorte que euh, benn oto mënu topp ci ginnaawam ba ñu xoolee ba xam ne Ousmane Sonko romb na xool ne ay avocat romb na ñi si nekkoon presse ñëpp dañ leen mujjee téye ci ginnaaw loolu moo tax li nga xam ne mooy cortège bi daañuy romb ba melul ni la dernière fois mais ñu ngi wéyal di dem ni euh, fi nga xam ne moom mooy euh, tribunal léegi ñu àgg ci corniche bi malgré les embouteillages entre autres ñu ngi koy gérer te itam bu ñu àggee fi nga xam ne moom mooy euh, tribunal bu Ndakaaru lépp loo xam ne rek ñeel na confrontation bi incha allah di ngeen ko am en direct ci biir ba Buzz TV kon dañ leen wax ngeen rester connecté ngeen bañ a déconnecté restez avec nous ci kanam tuuti rek ñu daal di dellusiwaat ak yéen. micro bi pour euh, euh, pour bañ ñu contourner ci bi la VDN bi moom moo nekk nii parce que fii juste boo boo dépassé tuuti rond point cité kër góor gi fi nga xam ne foofu lañ naroon génnee moom moo nekk nii mais fii tamit